làmb la de mais bëreeg Fils de Balla pour man moo gën année balance ndax tamit mbër moom yaakaar naa ne ku yokkul yaa wàññi te saa boo toogee bëri woo rek pour man pertement la ci yow te gëm naa ni ni mbër yi mag ni mbër yi nga xam ne ñoom laa bokkal génération ni ñuy doxee bu ma ci toppeek ñoom ci référence laa jëm kon bu ma gisee adversaire boo xam ne pare na pour bëreek man bëgg na bëreek man du ma def lu dul bëreek moom rek ndax mbër la te mu ngi prouver moom it. ay adversaire potentiel ngeen wala da nga koy may chance wala yéen ñaar boo ma doon wax ko raw ci làmb lan nga may wax. non maa moom moom mënuñoo nekk ay adversaire potentiel ku xool fi ma jugee ak fi ma jaar mënul nekk adversaire potentiel mais li ma booleek moom mooy adversaire yi di ma daw moom ma booleek moom yéen ñi nga xam ne sax yéen a nekk ci làmb ku dégg général fils de balle dinañ ne général lan moo tax mu jël ko mais nag mbër la champion la bañ ana balance moo tax ma jël ko. kon tey boo ma doon wax man pël bu rafet say adversaire potentiel ci làmb ji te nanguwu ñu bëri ak yow tey ñaan nga may wax. dama naan la Diène Kairé Quench Goro Sock ak nu mu tuddati euh, doomu dànku ñooñu ay adversaire potentiel lañ. non ku ku am combat ba pare jarul ñuy wax ci moom ñooñu samay adversaire potentiel lañ. te ñooñu buñ la jëru lan ngay wax sa gis-gis. sama gis-gis mooy ñoom ni ñuy dundee làmb ak ñun ni ñuy dundee làmb bokkul rek ñoom xëy na dañoo nekk ci làmb pour la forme rek ndax at bi nga ciy xaar benn combat boo xamante ne xamoo ndax di nga ci am wala doo ci am ñu lay jox ay adversaire ngay taamu loolu moom bokkul ci gëm yàlla wala bëgg li ngay def li ngay def boo bëggee bëgg ci prouver da ci jaar xàll sa yoon jël say adversaire jël say morom daan leen sa yoon leer nga mën a yegg ci kaw ndax di ngay gis champion bu samp fii champion bu samp fee te ñooñu tey amaana boo ko bëggoon arène sax mën naa jafe mu wóor la ne ñii du mën ta ñàkk dinañ laale seen biir ñu laale nga gis fa bëree ku mën sa morom duma mu jeex mais booy léegi dañoo bëri li ñuy moytonte man lii buñ ko defee sax mbaa làmb ji du yàqu bëre door bi ci yàqu la jëm waaw est yàqul ndax xam nga ñu ngi nekk naan sponsor yi nañ ñëwaat mais ñun ñoo war a njëkk a indi sponsor yi ndax ñun ñoo war a def li tax sponsor yi ñëw li ñuy def mooy imaginel Modou Lo ak Ama ba ñuy daje mbuur xaw ma lax di tëkkonte seen tëkkonte bu neex ba Modou Lo war a bëre ak xaw ma kan ñëw fekk Balla Gaye taxaw mu daw dëkk ko àdduna di ko coow ñëpp di waxtaanee ci loolu noonu mu wóoree nit ñi ay morom lañ kii mu ngi prouvé kee mu ngi ku ko tëggul tamit làmb la ñu tëgg seen làmb mu yëngal àdduna mais booy da sax gis booy bu toog ci télé farankulaay ñu invité la nga di émission nga yaakaar lu ne lay wax mu xool benn màgget nan leen jox ma leen ma ko maa ngi moom combat la na ma may sens léegi loolooy teel leen ma xale yi mën na gotu mag ñi loolu kañ ngay egg fa nga jëm kañ ngay egg fa nga jëm ah, da ngeen ji ni ma ko déggee fa lañ jëm de xaaju mbër yëpp a ngi moodu moodu mbër boo dégg mu naan la visa laa bëgg pour nangam tey moodu moodu ji waaw man nag sama kattan la yaakaar maa ngi ci làmb ji di jaayante grand contre petit bi gars yi wax d'accord waaw grand contre petit la gars yi yooyu la ñuy dund de instant non non grand contre petit laa wax maanaam ah ci làmb grand contre mais loolooy làmb ji fi mu toll nii loolooy làmb ji ubbeeku xam nga tey mooy li ma la junj sànq imagineel jamono ji Modou Lo doon tëgg ama ah, jamono ji muy tëkk Modou Lo jamono ji am ñoom dañ doon wax naan kii dafa dof mais gëm-gëmam la woon foofu la tolloon xool na koo xamante ni ñëpp dañ naan ko kii boo ci duggee dalay rey moom mu am gëm-gëmu dëkk ko mu dem tey ba àdduna yëpp soxla ko kon tey loolu promoteur yi laay waxal ku tëgg làmb jooju doo ci perte làmb ju neex la